gaal gaa ngi nii ku nekk ba tar day ay xalo yëg ku dugg ci gaalug jomaay Seex Sonko jàllale la gaal gaa ngi nii ku nekk ba tar day ay xalo yëg ku dugg ci gaalug jomaay Sonko la gaal ngi nii ku nekk ba tar day ku dugg ci gaalu jomaay Sonko jàllale la ay ñëw gaal gaa ngi nii teer ku nekk batar de ay ku dugg ci gaalu Basiru jomaay Cheikh Sonko jàllale la